honorable Alaaji Aliou Sylla daal di amalati taxawaay bu am solo ci àjjumay Tuubaa ji ni mu ko amale woon niki bi weesu ci ndigalu xalif général des mourides ci jàng alquran sikkar ak xasida ñu daal di koy yendoo ci jumaay Tuubaa ji moom kat ay berne yu am solo la waajal biir këram daal di koy convoyé yóbbu ko daal di koy jébbal sëriñ Cheikh Abdoul Latif moom mii sëriñ Muntaxa teg xam xewal yi ngir mu daal di koy saytu moom sëriñ bi sax daal di koy jaajëfal ci jëfam yi muy amal ci xew-xew yi di ci yoonu murit mu ciy jëfe lu am solo rabbi auusu bika min hamazaati saatini وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل الغرب رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وأبراد جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من خان وكان حقا علينا نشر المؤمنين يا من خان وكان حقا علينا نشر المؤمنين يا من خان وكان قن علينا نجر المؤمنين بل الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجعت كل بعمد وشكر إلى ولي المؤمنين وسكر قل يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الاد البير أنزلت دورا ديانا كل من ليس يكون آمنا يا جسما أنزلت دورا ديانا كل من ليس bi sëriñ Muntaxa teg loxoom xéwal yi ngir mu daal di koy saytu moom sëriñ bi sax daal di koy jaajëfal ci jëfam bi muy amal ci xew-xew yi di am ci yoonu murit ci jëfe lu am solo moom honorable Baye Alla Sylla naka noonu ay kàddoom mu am mbégte lool di biral ne jëf yi kat daf koo fas yéene di saxal wa bi sana bihi wa bil islaam ولتعفس كل أن المرامي غدمت سيد البراء يا أحمد والأنبياء يا من أمد غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يهبدا إلا نبي قد الصلاة والشلاة والأنبياء والرسل منشي الكلام على نبي محمد وعلى آله جل وجل وجل زوالي للمنتقى ما يسر بلا نعاية وقدمة تقبلا يزر لزيد الورى مختارا يا باقيا جانا مختارا نابي وصلي والبشل في أبد الله الذي لك يقود من أبد أكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بي تسليم واشكر كل. politique nga doon def ay social ak yu mel noonu. ñu bari doon wax dañ koy def parce que dañuy politique mais bu ñàkkee nguur dañ koy bàyyi tey jii ñu ñëw sa kër fekk la seen bi am lu mu wootee muy aaju yoo xam ngir jaamu yàlla ko euh, seen bi bàyyi la ñu bëggoon ci loolu jàngatu ba gars yi dañuy politique bu ñàkkee nguur yi euh, mu mel ni bàyyi la dafa lim maanaam liñ fi fekk moom dafay wute ak loolu. waaw li mu mel boobu nañ ci sant yàlla mooy comme li may wax sama biir wax rek mooy nit ki su fekkente ni dañ lay ji wóor na ne yow doonoo man dama wër ni nit social la nit donga la nit daara la nit lu ku nga xam ne dama ngay gëm sëñ Tuubaa comme ni ma koy waxee ci sama biir wax rek dama bëgg rek di ko jéem a daal du ma toog lu ci bari ba sëñ bi wax rek ma jógale fas naa yéene daal lépp lu nga xam ne ñu koy def ci Tuubaa bi te mu laaj perm de tàmm naa ko xel koo ma dama ko faa def suñ Tuubaa lu mën a xew lu ne vidéo yaa ngi koo delloo ginnaaw li may wax rek àdduna bi léegi dafa yomb parce que looy def lu comme nii mën nga fexe am sa film ma ci dara tey yi boo tuggee eh, dama yi tudd waa bari lu def da nga gis te loolu soxna ci loolu rek ci laa nekk soxna yi fekk si waa ñi sedd nañ ko parce que fekk nañ fi ay soxna yu wax ni bàyyi la nii la mel bu sëñ bu wootee day ñëw maanaam mel ni ñoom tamit am na cofeel bu ñu am ci yow ci ay jëf yoo xam ne da koy di muy jëf lu boo bëggoon a xam bàyyi la euh, lan mooy secret ba saa yu mbir yu mel ni xewee rek mu bokk ci ñi njëkk a jóg ngir liggéeyal sëñ bi waaw ngir liggéey sëñ bi mooy loolu maa ngi ñaan yàlla suñu borom dolleel ma ko damay wax ni fi fi may fi may roote nga xam ni borom du jeexal dama koy ñaan rek foo ñuy mayee mu dima fa may comme nii ñëpp man damay wax ni politique du sama bëgg-bëgg bu nga xam ne jaral na moom wàññi ci sama taalibe dara sama taalibe dama gënal politique moo tax tamit bëgg-bëgg sëñ bi rek lu mu doon lu ne man ca laa koy jiital tey bu a woote woon suñ bi woote damay bàyyi kooku dem sëñ bi kon mooy lii rek tàmmee naa ko fu bari xel koom ak fu ne dama ko doon def wala jànge toogu bitim réew dama ko doon def benn daal day sama mbir kon nag mooy social noonu la bëgg naa daal comme li ma koy waxee lu xew man lii du ma fa la fa la jàngee toog googu sax fa la ñuy taxaw bàyyi na dañu ñëw tey fekk la ci waañ bi nga toog mu nekk lu raar ci euh, yenn kilifa yi buñ gisee benn mën nañoo def lu ne waaye nga ñëw fekk leen ci bi ak waañ ñu xam liñ mën a tàngee ak yooyu noonu fekk leen fi ñu toog aussi loolu lu raar lay doon te ñu ñëw fekk bàyyi la ci waañ bi loolu tam mu nekk lu ñu jaaxal waaw waaye mooy comme noonu rek jamono ji moo moo moo demee noonu léegi booy booy toogul bu ne waral fexe fexeel ba sa matériel doy mais bu doyee ba noppi nag fexeel yam yow nga taxaw taxaw bi mooy jigéen ñi am nañ luñ bëgg mais yow mi toogul tam da nga am loo bëgg man nag li ma bëgg damay fexe ba di lépp ko sant bëgg ñi di ko defee ñoo ko bëgg ndax toogu léegi mën nga def sa toogu bu baax mën nga ci sonn def ci nga ci def ba pare ñi def ko ay booyaan saf safal ko ba mu ëpp man nag dama bëgg a taxaw lu may def daal ku ma ko jox sama la ko joxee mu nekk ndax bàyyi la toog kan la mu sedd guy ci yow nga xam ne doo ci am dooy xalaat daal boo koy lekk boo ko lekkee da nga xalaat ne ku ko toog man nag ci ñooñu laa bokk dama bëgg daal lu may def sama xol tàlli ci ma def ci li ma ci war a def. bëgg nañu xam social yi yooyu kañ la ko Baye Alla commencé Baye Alla mën nañu wax kañ la commencé def social lu jiitu muy dugg ci politique la wala ginnaaw bu mu duggee ci politique wala kañ la commencé euh, def mbir yu ni mel. man naa la wax ne dama cee juddu. Hmm. juddu gi mooy dama fekk sama baay mu nekk kuy aji kuy dimbalee xam ma ko soxu baax parce que biir dix ans la dégg naa ñu ne ma soxla saa soxla bu ñëwee ci moom dana la yalla nak moy mel na ni xamna lu mu jël ci mom lolo nak la fasiyene rek di ñaan ki may mu di ma may rek toujours may ma ma nak ku ku bëgg ku bëgg and ak man ci loolu ma nak sama njaboot ku bëgg rek bernde koo war dimbali te nga man ko nga dimbali loolu daal laay ñaan suñu borom mu gën ma ci dimbali ma man ko bal la euh, ban message ngay lancé wala yeen cadeau ngay tejé cadeau yi may message wala ma di ko tëjee comme ni ma nek rek nek talibé du ma gis daal dara lu ma mën a góor di lu bëgg sëñ bi du ma xool keneen bay jéem a am lu may xebet ci sëñ bi sëñ daal laa bëgg parce que yéen a dàkk ndigalam lim nekk ma nekk ci. parce que kenn ku la ku la ci man dewaat sëñ bi bëgg naa boobu man nga werante mais kenn ku ci ne boo boo boo boo dee xool tànki sëñ bi wala ngay xool bëgg-bëggu sëñ bi xam ne sëñ bi moom lu baax rek la bëgg lu jëriñ doo baax damay la bëgg kon soo ko dee dàkk rek man ngaa bañ a dugg ci loolay sànq. loolu daal laa am ci lu may dénk ndaw ñi di ko dénk sama bopp di ko dénk jigéen ñi nañ fexe daal ba li sañ bii bañ ñu ñu bàyyi ko li muy bëgg ñu fexe di ko dàq di ko def foofu daal laa ko. bàyyi la kon ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf sant nañ leen bu baax gërëm yàlla na leen yàlla defal.